salaamaaleykum mbokk internetu dakarnet point com ah, démb ah, lañ dégg benn xibaar bi ñu ne woon tey Wakhinam ah, Géejawaay garage Toubab ñu ne dafa lakk plus de quinze oto lakk fii léegi lu dul def rek lu dul ànd ak équipe bi ñëw fii ci garage bi waxtaan ak ñi fi daan liggéeyee ak aussi ñu fekk woon lakk bi jee nañ dugg laaj gars yi lan mooy seen réaction ci lakk-lakk bi fi amoon démb. dañ toog suñu kër ba ay deux heures du matin trois heures dix yooyu jàppal trois heures ñu woo ñu dañu garage baa ngi lakk. après ma interpellé sama ñaari xale kii mm, magam ak rakkam ñu daal di taal scooter yi ñëw ñëw ma gënoon woyof léegi nag biñ ñëwee ñoom nee nañ dañu fekk euh, oto yu ndaw yi lakk bon fii nag ñu nekk nañ fii lii musu fi am bon euh, effectivement sax lakk bi dana am souvent dina am lu fi daan xew bu ñu tuuree fii mbalit boo xam ne dafa ànd ak dara mën na taal ñax yi mais bu taalee ñax yi loolu bëccëg lay nekk nit ñi dañ koy fay mais fii deux heures du matin ñii dafa am ñoo xam ne dañ fi ñëw bees daal bon enfin xamuñu mais ñoom lu fi bi ñu fi ñëwee bees matuñu sax weer ay xaw ay làkkat lañ ay der la ñuy fees deru nag bu ñu fees ba pare moom la ñuy jël di ko baxal après. su ma déggee sa wax que ni ñooñu euh, bu bokk nañ ci lu waral tàkk-tàkk. en tout cas ñoom daal lañ fiy toog ba ay vingt deux heures di saaf ay di taal safara safara boobu est-ce que fay nañ ko wala fayuñu ko ñun xamuñu ñibbi nañu bàyyi leen fi. jékki-jékki ñu woo ñu ne fii mu ngi tàkk te boo xoolee safara bi foofu la déparé ñëw ba fii bon ñu xëy ñëw bon matériel jàmbur yi ñu bàyyi loon yëpp yàqu comme ça suñu caisse à outils yi yëpp yàqu am li ñu presque bon mécanicien day am ay accessoires yu ndaw yoo xam da koy denc pour di ci am dara loolu yëpp dafa daal di mujjee yàqu. aussi tamit ñu gis ne euh, fii presque gis nañ fi ay tata gis fi ay taxi ak yeneen est ce que ban impact la mën a def euh, comme yéen ñi ñi fi ñëwoon fay fi seen xaalis bëgg ngeen defar leen seen oto yi. waaw non danger la parce que ñun koy ñu xamatuñu fu ñu jëm ndax léegi su fekkee da nga yow di dalay jox alalam mu yàqu bu demee daan kooku est ce que garage am wóor na pour ma indi fa dara est ce que garage am wóor na ma indi fa liggéey daan su ma fi indee liggéey mën nañ ko lakk wala mën na yàqu du du ñun fi mu nekk nii ñoom li ñu yàqal waxuma sax matériel bi ñu yàq mais fi ñu yóbbu rek problème la mën nañu yóbbu en chômage parce que ñoo xam ne ñi duñu wóolootu pour jox ñu liggéey wala clients yoo xam da nga leen amoon dañuy daw waaw yooyu yëpp mën na ci nekk. mais est yi nga xam ne ñoo lakkale seen oto fii euh, jot nga leen a woo pour wax leen ko informer leen ko. effectivement effectivement bon ñëw nañu gis nañ ko bon enfin ñu gëm yàlla lañ nag parce que tamit bi ñu ñëwee parce que nit des fois ñun Sénégal ni ñuy dundee. Euh, boo yàggee nit day nem ba niwtoo nekk affaire du liggéey moo leen di boole da ngeen di nekk en famille léegi ñoom bi ñu ñëwee comme ñun la ñu jox responsabilité yi bon amuñu lu ñuy wax ñun daal vraiment lii ndogalu yàlla la bon kenn ci ñoom ñëpp dañ ne daal lii dañuy def mais comme comme ku ñu am te ñoom ñëpp benn oto la ñu am ah. benn oto koo xam ne ki da nga am benn oto di ko fay ba mu mat nga bëgg ci di dépense di ci forlooy dundale sa njaboot ñu xëy def ko nii c'est dangereux. kon yaakaar naa ne fii am nga benn message bi nga xam ne war nga ko mën a jox état bi parce que ñu ci yàqule comme ni nga ko waxee euh, ñu ñoo xam ne ay père de famille lañ ci la ñuy liggéey pour mën a dundal seen doom ban message ngay jox état bi. message bi may jox état bi ñun géejawaay lañ dëkk 72 la ñu toxal suñu papa yi ak yaay yi jëlee leen wàqi naan indi leen fii 72 bi ñu dëkkee géejawaay ba léegi ñun amuñu fi dara bon fii maire bi moo ñu dimbali may ñu fii ñu jël ay oto fay sunu xaalis. fii kenn mënu fi woon jaar kenn munu fi woon nekk mm-hmm. ñu aménager ko ba mu baax ñu def ci ay garage mm-hmm. maire bi ñun amuñu dañ koy sant di ko gërëm moom Racine Talla parce que lim ñu defal kenn mësuñu ko defal parce que tamit quoi qu'on puisse nit bu la defalee dara da nga koy wax mm-hmm. du affaire politique nekkuñu fi pour raay kenn dañuy wax li nga xam ne li moom lañu ñu defal parce que fii am ñun 72 bi ñu dëkk fii fii ndox la woon dañ fi daan gub ay lépp lañ fi daan def waaw 72 ñi fi dëkk géej waaye xam nañ ko fii kenn daaw fi jaar. jël mais lii tamit du sax affaire état bi parce que lii nii euh, fu mu am rek état bi ca war a ñëw jàpp ci loxoom. fii zone d' activité la. par force la parce que tamit état moom li mën mooy jox la loo liggéeyee mais li ngay def ba sàmm ko mais tamit dafa am ñoo xam ne ñii dañuy ñi nga ñi nga xam ne dañ la dend ak yow dañ lay xeex du ñu bëgg nit ku ñuul moo soxor. xeexante seen biir fii. maanaam ñi fi nekk ci koñ bii nañ ko wax. waa koñ bii ñun bi ñu fi ñëwee ba léegi may ñunu jàmm dañuy oto yi dañuy defar fii jardin dañuy fubal fii dañuy def nii def naa dara lañ fi deful léegi nag ñoom ñoo fi indi ñoo xam ne ñoo taal suñu oto yi. nit indi la alam nee na liggéeyal ma ko oto bii sama yaay moo moom kenn sama yaay la moo ah, moo ko moom. après sama yaay la quoi parce que ma yaayee ko mu jox ma alam ne ma naa ko liggéeyal naa ko taxawal otoom ma ko tolee bi tolee bi di ci liggéey samedi rek fi laa nekkoon ba timis dem ñibbi ñu ñeen leen ni bu xëy ma jox saa ne mu àgg oto bi far ñu woo ma guddi gi ne ma oto bi oto yaa gaa maa ngi tàkk loolu lañ ci am. léegi oto bi euh, pare woon na wala li ci desoon bariwul wala bu. oto bi ay fii sax mooy des porte yi gisoo mi ngi nii porte benn porte baa ngi ne benn baa ngi nii porte la wàcce woon doo ko defar pour bu lëndee mu monté ko oto bi mën a pare oto bi pare woon na presque pare woon na presque attaque bi daal boo bëggee dégg-dégg rek ñag yi daal ñag yi ñoo taal taal bi moo ñëw ci kii bi àll bi mu taale fii waaw parce que kari samedi moo daa ngelaw léegi nag ngelaw nag lañ jàpp ne ñoom biñ taalee la barax bi jàpp mu ñëw fii kon kon dañ jàpp ne ko ñoom ñoom kon ñoo ko taal waaw. à chaque fois ñu naan waa bi ñoo ñuy xeex ak yooyu noonu lan moo waral loolu. waaw parce que xam nga nekkoon na garage bi ñoo xeex garage bi ne fi gars du fi am léegi bi gars yi kii ñu bàyyi ñu ñu gis ñag ñëw fi kon ñoom kon ñoo la ngemb. mais mais li ngay ngemb ñag mais nga ngemb ko sa doomu Sénégalais parce que ñoom ñii ñëpp di fi nekk ñi ngi jaay ay ndox ay bisaab ñii di jaay ay xaal. te ñun ñoo ko jënd kon ñoom ñu yaatal ñu moo gën ñu yaatal ñag que ñu ñoo ñu ñëpp ñoo bokk nekk kon nañ jéem a jàppale góor ak xale doon benn eh, loolu mu laa gis état mooy lii tamit mu jàpp ci parce que bu ñu jàpp tamit ñun tamit ñun tamit su suñu gàcce xaj na ci tey ba tey bu ñu dañuy fay tamit ñu dara état bi tamit comme tamit ñëpp état bi mooy yërif mën a jàpp tamit jéem a xool tamit lu yoon may tamit dañ ko jël nañ def tamit topp yoon parce que al jàmbur lañ te seen borom tamit suñuy naaw lañ te bëgguñu tam ñoom ñu daal ñuy yàpp ñun démb dañoo xëy si woon comme samedi bi dañ fi nekkoon di liggéey ñu liggéey ba wàcc dem ñibbi yàlla dogal ñu préparé woon ci dimanche bi xëy si liggéey si waat biñ ñëwee ci lañ fekk daanaka daal ñun bagage yi ñu fi amoon yëpp ak ay bagage yoo xam ne si dañ ko jëndoon pour oto boo xam ne si dañ ko war a defar bagage yi yëpp lañ fekk mu lakk man sama bagage yi nga xam ne moom laa war a liggéey outils yeeg raakool yeeg a lakk ba jeex tàkk tàkk tàkk wax dëgg yàlla dañuy sant yàlla ndax mën naa gën a métti ndax oto yi ñu fi bàyyi woon bari woon na bagage yi bari na mais comme li nga xam ne loolu la yàlla tudd moom ala kulli àll bu la waree dal rek da lay dal sant yàlla bu baax. Hmm. mais bu affaire bi amee ba ngeen woo seen client yi ñoom naka lañ koy dundee. waaw woo nañ leen man ñi nga xam ne si ñoom laa yoroon seen i bagage bi mu yàqoo dama leen a woo bi ma leen woowee ñu ñëw biñ ñëwee wax dëgg yàlla am am nañ am nañ am nañ ci kontaan parce que ni niñ boo gisee niñ doxee rek nga xam ne nii lii xam nañ ni lu yàlla dogal la ñun mënuñu si dara. waaw xanaa ñu leen di ñaan rek ñu ñuy jàppale parce que ñun ay xale lañ te daanaka biñ duggee ci métier meeg léegi xaw naa am ay fan waaye fi mu ne nii daanaka yow li ngay liggéey presque mënoo cee am loo xam ne ci sax mën nga see dundal sa buñ sañoon daal ñu ñu gestu bu baax ñun ouvrier yu ndaw yi nga xam ne dañuy door a dugg ci métier mi door cee nekk loo xam ne si dañ ci door a commencer pour wut ci dara buñ sañoon ñu jàppale ñu ci baax a baax daal. ñu dañuy bës suñu xol nii di wax rek mais dañuy forcer mais mënatuñ mais lii dafa metti trop oto bii nii dañ koo liggéey ba mu paree ba génn ah, benn port bee sérité wu mu ñëwaat taxaw mu jënd batterie bee saax lépp mais suñ borom rek xam nga rek lum lu mu dogal ci yow rek dalay dal barki démb la pare ba génn samedi bi noonu la génn ba dem ci ngoon gi la ñëwaat si la dogal ndogal bi dabee fekk fii te mu nekk loo xamante ni lu metti la tey xamuñu nu mu dafa am xaalisam ba def ko ci oto bi tamit lépp rek mooy ma li may mën a wax rek mooy ñun Sénégal ñuy dëkk ñu fi amuñu fi baat étranger képp ñoo fi am baat. te dégg ne ñoom sax bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo lakk fii. parce que tey ñoom dañoo ba seen dëkk ay ñag lañ ñëw fii nii waa koñ bi ñu dañoo xeex ak ñoom moo tax ñu des fii nii fii nii ñun dañoo jaral lu ne mais dañoo xeex ak ñoom fee ne ba képp ku fa samp sa place dañ koo dindi. ñun ñoo leen të mais nag ñoo nag bu ñu ba jëlee ñeneen indi leen fi samp leen fi kon bu fi dara xewee dañ naan ñoom la tey lépp lépp lépp lépp ñoom tey bu ñu sañoon ñun léegi-léegi dañ fiy jógee ah, kon ñoom bu ah, ma déggee ah, say wax kon ñoom dañoo d'accord ci affaire bi am fii nii parce que ñoom ñoo jël étranger may leen fii doole ba ñëw bay mën a jàmmal ñoom mosuñu kaa d'accord dañoo xeex ñun guddeeg bëccëg dañuy tëdd sax suñu xel du dal ñu naan tam ñu xëy fekk ñu yàq suñu oto yëpp kon yéen lii bett leen souvent bu ñu la déggee comme ni nga koy waxee. kon non bettuñu parce que dañ naan ne ñoom tamit seen loxo mu ci biir tey ñoom fii lañ dëkk seen kër boo xoolee benn tonu góor ñu ngi fa mais bu lee di taax mënoon na ñoo jóg buñ sacrifié woon jóg ñoom man gëm naa lii du egg fii nii. kon dafa am benn seetaan bu am. non seetaan da cee am ndax ñoo xam ne jóge nañ ba marché maam jaara mhm. daw si ñëw ba fii nii tombé ci mën a arrière yenn oto yi kon xam ni kon bu ñooñu yéexoon rek amaana leneen lañ fiy fekk. metti wax dëgg yàlla euh, man yàlla dogal na fi ma dëkk dafa xaw a sori parce que man maa ngi dëkkee Kër Massar mais xale yi nga xamante ne ñoom ñoo jege dëkk fii ñoom biñ ko yëgee daanaka ñoom 3 heures du matin lañ fi agsi fi lañ nekk ba 6 heures du matin. waaw di joxe ay di def ay pexe yoo xamante ne dina mën a fay affaire bi mais xam nga tam am na lakk boo xam ne am na fu muy toll nit du ko mënu koo fay parce que il faut que sapeur yi mën a indi seen citerne parce que seen pression yi moo ëpp doole ci la booy fexe ba euh, sapeur yi agsi wax dëgg yàlla ñoom it xëy xaw na noo yéex a ñëw mais bi nu ñëwee euh, moo tax vraiment affaire bi yem fee mais bu fekkoon yéex na noo ñëw benn instant wala ñëwuñu kon fii yëpp ay jeex parce que instant jour ba journée bi dafa ngelawoon guddi gi dafa tax quoi waaw aussi euh, dégg nañ ñu ne ay dafa am ay étranger yi fi ñëw euh, di fi lakk ay der est ce nekkul ne ñoom ne seen xalaat lool looloo yaakaar ñu ne looloo waral lakk-lakk gi am fii. waaw euh, li ma si mën a wax nag mooy yàq dëgg la parce que soo xoolee bon nit rek nit ku nekk xelam nga dem xool boo gisee mbir mi fi mu tàmbalee nga xool seen fourne yi ñuy taalee toujours foofu la tàmbalee ñëw nii. parce que boo xoolee journée boobu ngelaw bi guddi gi dafa amoon ñëw côté bii moo tax xëy na bi mu takkee mu ñëw nii mënuma justifier nag dëgg-dëgg ni ñoom la mais li ma jàpp daal man mooy taal su amee li ñuy njëkk xalaat mooy ña fa daan taal. te ñoom journée boobu euh, euh, maanaam waxtu boobu fekk na leen fii ñoom ci lieu bi ñu liggéey parce que man ndekete ñoom nee na ñoom dañuy fanaan fii di liggéey waaw di liggéey dafa ñoo am ñaari équipe bu ñuy bëccëgee bu ñu ñëw guddi kon safara te ñoom ñoo fi daan taal safara suñu xel li mën a jàpp ne safara boobu moo wàll si taal ñax yi ba agsi fii suñ suñ garage yi. pratiquement nag bi ma bi affaire bi amee ba tey ñoom seen activité yëpp dañ ko arrêté gisaatuma leen fi nag franchement xaw ma nag lan moo leen téye mais gisaatu gisaatu gu ma leen fi daal.